Ndongo Sarr maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Ndeye Comba. voilà Ndongo Sarr nga nekk secrétaire général bu cadre unitaire des syndicats d'enseignants du moyen secondaire ñu gën ko xam ci CUSEMS ngeen fas yéene organiser ay mouvement d'humeur ci 7 novembre bile lan moo xew exactement. waaw Ndeye Comba li xew lu simple la. xam nga ñun dañu signer ak gouvernement bi ay protocole d'accord en ak protocole d'accord yooyu ñaar yooyu yëpp daf ci am ay poñ yu important yoo xam ni ba fi ñuy wax ak yow tey mais gouvernement bi ci boppam wéyalewu ko donte euh, délai yi nga xam ni moom la joxe woon ni bala ñu caa egg daañu ko regle dépassé nañ ko bu yàgg mu am lu ci dooleeku li ci dooleeku moom mooy jamono ji may wax ak yow ni dafa am ay jàngalekat ay élèves ay étudiants yoo xam ne dañ leen jàpp tëj leen ci kaso bi daaw ñun dañu porté woon question boobu mooy question suñu ñooñ jàngalekat yi ak élèves yi nga xam ne dañ leen jàppoon tëj leen ba ministre de l'éducation woo ñu ñu waxtaan ak moom bi ñu woo bi ñu toogee ba poser problème bi moom si boppam mu engagé wu ni jàngalekat yi yeeg élèves yi nga xam yëpp dañ leen jàpp pour délit d'opinion wala ñu jàpp leen pour participation à la à une marche ñooñu daañu leen libéré mais non seulement defuñu loolu mais dañu continuer di jàpp yeneen i jàngalekat par la suite mag bii kese nekk nekk rëbës soo fa demee am na fa fukki jàngalekat ak ñett yoo xam ni ñoo ngi leen jàpp tëj leen foofu waxatuma nag maintenant euh, étudiants yi. dénombré nañu ci ñoom trente sept fanweer ak juróom-ñaar yoo xam ne ñoo ngi foofu ñu jàppale te ñoom ñi ci bari li ci ëpp li ñu leen di xam nga mooy lan mooy ñenn ñi dañu dem seen page Facebook ñu bind fa benn message wala ñu publier fa benn émoticône ñeneen yi dañu participer ci ay marche mais loolu yëpp dafa nekk ay droit yoo xam ni constitution Sénégal moom moo ko may képp kuy citoyen te jàngalekat bi dafa nekk citoyen bi muy daata nekk et ñun lu ñu mënul comprendre mooy jamono joo xam ni ji ñoom autorités yi seen bopp dañu wax ni kat jàngalekat dafa manqué ci système bi au point que soo doon war réew mi bare na école yoo xam ni tey fi tey dañu paralyser xale yi amuñu ku leen jàngal yow ngay permettre di jël ay jàngalekat donc di leen tëj donc si jamono jooju donc loolu dafa nekk loo xam ne lii lu inacceptable léegi communiqué bi nga xam ne ministre daf ko génne au lieu que mu taxaw mu wax ci ci àllikëli ji mbir yooyu nga xam ne ñun moom la ñuy posé mais lan la def nekk di jeter de l'huile dans le feu xam nga di menacer nit ñi naan ay appel déguisé à la grève mais ku organiser conférence de presse bëccëgu dara kàmm wax li ngay def ni dangay ngay wax ak opinion publique nationale ak internationale kooku làqatu xam nga loolu waxu kasaw kasaw la rek. Mm-hmm. ku ñoom seen bopp ci communiqué bi dañuy wax ni ñun kat dañuy mettre en péril l'entreprise dañuy porter atteinte à la liberté du travail dañuy destabiliser le système pour des motifs inavoués. mais loolu yëpp ci kay def xam nga mooy kan mooy ki nga xam ne dañ ko dénk nguur mu war a gérer système éducatif waroon planifier pour que su école di tijji jàngalekat du manqué salle yu accueillir élèves yi du manqué table banc du manqué lenn loo xam ne ni day ñoŋal njàng mi du manqué kooku waroon ko def defu ko kooku moom mooy mettre en péril la liberté du travail moom miy tëj ay jàngalekat di leen empêcher ñu dem ci école yi jël en charge moom moomu moom mooy déstabiliser école bi parce que nag école bi lenn lu ci indi problème daaw ak ren mooy une gestion politicienne du système et loolu dafa nekk loo xam ne c'est inacceptable enfin ci communiqué bi. Hmm. en fait booy xool lan la ci ministre ministre bi wax dañu si wax ni en fait euh, suñu deful naan. ak koor yi nga xam ne dañ ko signé en deux mille vingt deux. dañu ciy dellu si. mais xam nga dafa am loo xam ne lii euh, ñun dañu bëgg mu leer nguur gi su dee ñoom dañu signé ay engagement ak bailleur de fonds yi engagement yoo xam ne dafa am contrepartie te contrepartie yi mooy lu demee na ñu ni leen kat subvention yi ngeen doon def ci électricité beeg yooyu ngeen bàyyi ko. masse salariale bi ngeen di fay dafa bari institut et cetera jéem leen xool noo leen ko wàññee nañu ko assumer su dee dañu jël engagement yooyu nañ ko assumer plutôt que ñu nekk fi naan dañuy jéem a wut ay prétexte maintenant ñun li ñu bëgg mu leer moom mooy que daañu taxaw tem jàmmaarloo ak ñoom feek problème yi nga xam ni moom la ñuy poser ci système bi tooguñu ñu waxtaane ko ñu adressé ko réglé ko waaw je crois que loolu mooy régler problème bi ci système bi mais du nekk di jéem a xëbal ak di def ay affaires yu kenn xamul ainsi de suite et cetera. Hmm. nous hmm. école morte bi ngeen bëgg a organiser ci 7 euh, novembre bi lan moo nekk prochain plan d'action bi Ndongo Sarr. waaw mais xam nga ñun lan la ñuy ñaan mooy ñu bañ a soxla di dem ci beneen plan d'action dañu bëgg que journée école morte bi permettre aux autorités ñu jël la pleine mesure des choses. xam ni ñun kat un boo xam ne ay engagement la yoo xam ne ñoom ñoo ko jëloon respecté wuñ ko ba léegi loolu la ñuy laaj ñu respecté ko si mbirum jàngalekat yi ñu jàpp ay engagement la yoo xam ne ñoom ñoo ko jëloon daaw ministre de l' éducation nationale moo ko jëloon ak ñun PV bi nga xam ni bindoon nañ si mbir moomu PV bi donc mi ngi si que loolu ñu réglé ko donc loolu suñ ko defee xëy na peut-être mën nañu delloo si jàmm ak salaam maintenant nag suñu defee safaan ba de toute façon bu boobaa ñun daañu taxaw tem jàmmaarloo Mmh. pour année scolaire bi euh, bañ a am yëngu-yëngal yu bari deux mille vingt trois mille vingt quatre lan ngeen di suggérer autorité étatique yi. mais xam nga ñun li ñuy suggérer. Hmm. Euh, tooguñu ba tey ñu koy def. ñun le seize et le dix sept septembre dañu organiser benn conseil syndical national. suñu ñoñ yi nekk ci réew mi yëpp ñu dajale leen fii ci Dakar ñu waxtaan ba ñu waxtaanee ba pare mais dañu waxtaan ak autorité yi ni leen ah ñun kat dañu gis ni jàngalekat yi ñu jàpp tëj leen ak i élèves ak i étudiants bu indi jàmm ci système bi te yéen gis ngeen fan yële ci ginnaaw étudiants yi nekk université dañu organiser wu dem ci réew mi fu nekk di génnee yeneen écoles yi nga xam ni moyen moyen secondaire. lu tax ñu koy def mais c'est parce que dañu dañu fermer université bi lànk bañ leen bañ leen ko tijji donc loolu dafa nekk loo xam ne li problème donc ñun dañu wax ni dafa am ay poñ yoo xam ne dangeen ci war a taxaw temm léegi ca teel ngeen régler ko pour que ren kat année bi mën a nekk année scolaire boo xam ne bii jàmm ak salaam kese moom moo ci am kenn dégluwuñu accord yi ñu mujj signé en deux mille vingt deux bañ ko signé dafa amoon point ni moo doon comité de suivi. boo xam ne dafa waroon topp di saytu accords yi xam ñu ci def ñu ci deful lan la ñu war a jooyanteeg ainsi de suite et cetera mais dama ni depuis buñ ko sampee ba léegi mat na daanaka at ak presque juróom-benn weer comité boobu benn yoon kese la mas a réunir te pour mu réunir il a fallu que ñu grève mettre la pression pour que ñu convoqué bañ ko convoqué am na ay engagement yoo xam ni ministre de la fonction publique daf ko jëloon mais ba fi may wax kenn kenn matalewu ko. si question bu mel ne par exemple la question du décisionnaire sur la formation am na engagement yu ñu jëloon yoo xam ni ba léegi mataluñ ko donc loolu mooy aali këll ji nañu wax ci loolu plutôt que nekk naan dañuy def benn leçon de droit aux responsables syndicaux yaakaar naa syndicat bu mel na SAEM syndicat bu mel na CUSEMS nga xam ne ay syndicat yu mag la yoo xam ne bañ dootee grève tey du ñooñu la jàngal que ni droit de grève dañ ko encadré ak nan lañ koy nan lañ koy def. Mhm. dernière question Ndongo Sarr en tant que sénégalais en tant que euh, fonctionnaire na nga gisee euh, cherté de la vie au Sénégal ñu bari fi ñu toll nii euh, di ko jàmbat daal niveau de vie bi jéggi na dayoo noo ko gisee. waaw mais xam nga loolu moom fi mu nekk nii yaakaar naa ni Sénégal yëpp maase di ko ndax nag li xew tey fi tey ci dëkk bi. Euh, notamment ci cherté de la vie mais yaakaar naa ni amul benn sénégalais boo xam ni souffriroo ci voilà te loolu nag euh, dañu yaakaar ni gouvernement bi dafa war a jël ay matukaay le plus rapidement possible et eh bien pour soulager donc population yi plutôt que mu nekk fii di menacer nit ñi di def ay affaires yu kenn xamul je crois que dafa war a poser ay actes yu concrets pour que effectivement inflation boobu nga xam ni bii tey fi tey ñëpp ciy souffrir mais que inflation boobu en fait ñu contenir que jéem xool nan lañ koy réduire à la à la baisse pour que jàmm am ci dëkk bi. beneen ponk aussi di xale yi jël mbëkk mi gis nga ni euh, phénomène bi Barça wala Barsaq dafa mel ni ëpp na doole autorité yi ëpp na doole sax tubaab bi fi ñu toll nii sénégalais yi ñu ngi dee ci géej gi bu baax a baax. waaw mais xam nga loolu moom yaakaar naa dafay am lu muy wane rek lu muy wane mooy benn situation de désespoir boo xam ni dafa atteindre les sommets ci suñu ay xale suñu ay doom suñu ay jarbat yu nekk ci dëkk aujourd'hui c'est parce que dañu amatul lenn lu ñuy xaar ci autorités yi nga xam ni ñoom ñooy gouverner donc fii si dëkk bi moi je crois que loolu rek moom moo leen di pousse donc ñuy dem loolu nag jàngat bi ci autorité waroon def pour ñun mooy ñu xool ni politique yi nga xam ni boobu ba léegi moom la ñu samp ci wàllu euh, xëyu ndaw yeeg institut et cetera mais politique yooyu en tout cas dañ ko war a xoolaat parce que su doon joxe na résultat yi nga xam ni moom la ñu soxla mais xale yi du duñu jëm risque yu toll noonu mais ñun ñëpp xam nañ ni tey fi tey xale yi euh, dafa mel na dee si boppam ragalatuñ ko. donc ñoom aujourd'hui dem bi amul lenn lu mu leen jarul mais loolu nag su dem demee ba egg foofu dafa wane ni en fait dafa egg ci désespoir soo xam ni vraiment jégg na jéggi na day et ñun dañuy considérer que ni euh, la question jeune si réew mu mel ne suñu réew mi c'est une bombe mhm. boo xam ni dañ ko war a désamorcer très rapidement suñ ko deful eh bien fa muy jëm du neex te loolu vraiment du nekk loo xam ni kenn gënal na ko. Hmm. merci beaucoup Ndongo Sarr en tout cas. ñu ngi lay remercier bu baax a baax. non non non on ensemble. di fàttali ni Ndongo Sarr yow yaay euh, secrétaire général bu cadre unitaire des syndicats d'enseignants du moyen secondaire ñu gën ko xam ci CUSEMS e jërëjëf ci disponibilité bi. tout